Euh, asalaamaaleykum mbokki département de Tivaouane asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum région de Thiès ba tey ngeen di àndaat ak ñun comme ni ñu koy defee ci askan wi ndax askan wi saa su ne seen jafe-jafe moom moo ñu yitteel ndax itam seeni kàddu bëgg nañu koy jàllale waaye amuñu fu ñu koy jàllale te Dabakh FM TV doon sit bi nga xam ni dafa yor baat bi leer tey leeral daal di ñëw tey fii ci kër Saala Mbata bu nekk commune bu nekk ci biir Tivaouane kër Saala nag quartier la ci biir quartier yi nga xamante ni mi ngi nekk ci Tivaouane askan waa ngi ni lu ni fàng kenn du ko jeex yéen a ko gisandool seen bopp jafe-jafe yoon la ñu am fexe nañu ba lijjanti seeni camion camion wu xeer yu xonq pour kéréel seen bopp yoon. gis ngeen ko nii donc yoon wii muy yoon bu xonk bii ngeen di gis rang rang bi ñoom ñoo ko fi taxawalal seen bopp gisuñu benn autorité bu leen jàppale ñoo jëndal seen bopp ay xeer jëndal seen bopp euh, jëndal seen bopp gasoil def ci oto ndaraan bi def lépp rien que li ko sabab du lenn lu dul bëgg a am yoon bu seen yow bu askan wi di jaar ndax ñii ay citoyen lañu ci dëkk bi lañu bokk te heure bu campagne jotee politiciens yi dinañ fi ñëw waaye dañ leen di dig rek bu campagne jeexee ñu demaatal seen bopp waaye laaj ñi xanaa li lii politicien bu fi ñëwati bu ëllëgee sa yaram war na mën a daw ba waral sax nga war leen a mën a jàppale ndax bu ñu xoolee ci département de Tivaouane wala commune Tivaouane bépp autorité bu ne bu jëndoon lu toll ci juróomi camion wu xeer yaakaar naa ni kon yoon wi saafarawu na bu yàgg waaye ñu toog tey seetaan ba askan wi di ko jël di ko defal seen bopp kon lii doon na loo xamante ni ku leen ci mën a dimbali ñu jël waaye ku leen mën a jàppale itam ñu jël lii fi nekk lépp nag askan wi ñoo ko def amul benn autorité bu leen fi fekk ak dara ñoo jël seen i dërëm cotiser seen i ñaar dërëm cotiser daal di koy jënde ay xeer sotti ko fi pour fas yéene wutal bopp yoon boo xamante ni dina ciy far di jaar gisee ngeen ko nii ni nga xamante ni noonu lay demee beneen camion mën nga nële ca gannaaw taxaw moom it di waaj a ñëw di xaar euh, bu ñu toppalee fii ba pare camion bale itam daal di ñëw sottiwaat xeer mën nañ ñi ci subaak léegi askan wi li ñu jënd ci xeer yu xonk yi

non loolu dañ ko def. politique fen nañ ñoo fen a fen ba. ba lu xamante ne waaye nañu ba ñu dee ñun dañu bokkuñu bokkuñu ci réew mi parce que bokkuñu ci réew mi bokkuñu ci réew mi kenn jëndiwul ñun dañ amuñu watee sunu parce que bokkuñu ci réew mi politicien bu fi ñëw den la toroxal billahi politicien bu ñëw kër Saalum Batam ñu pot toroxal amul ku fi ñëwul suñu jumaa ji kere biñ koy ubbi fi ne Idrissa Seck jullee jumaa ah dañ koo gisati ku fi ñëw ñu toroxal la barke sëñ Bamba politicien bu ñëw ci buy jóg yëpp nga teggi kër Saalum boo fi ñëwee dañ la toroxal gis ngeen ñun nii. te ñëpp jaañ si yoon amatuñu fu ñu jaar amuñu ndox amuñu yoon amuñu ndox. xaw ma xaw ma am leen weer xaw ma amuñu